observateur xëy dalal gan Pape Diop président coalition bokk gis-gis liggéey laaj bu njëkk bu observateur jëm ci moom Pape Diop mooy ana nu mu dundee coow ak ŋàññ yi toftalu ci dogalam àndi ak waa Benno Bokk Yaakaar ngir taxawal groupe parlementaire benn bi ci assemblée nationale mu ne lépp ak dal la ko dunde ndax moom nit la koo xam ne su amee yàqin ne la mu def noonee la te ci ànd ak dal ca wane woon na ko euh, ci atum 2012 bi muy génn PDS ndax jàppoon ne su Abdoulaye Wade nekkul ci liste bi mooy ki ko waroon jiite demee wuni mu jëli bagaasam dem ak dal ci waxtaan wi ba tey observateur président Pape Diop ne dogal bi nag yëgoowu ci ak benn membre benn bokk yaakaar Sénégal rek la doon moytul ab blocage ca penc ma moo waral boobépp dogal du baara yëgoo président Sall mu ne ñaari waxtu ginnaaw dogalam woo na ko téléphone di ko gërëm ak sant ca naan ka sauvé nga Sénégal ca mu ne moom loolu rek ko ñor Pape Diop teg ci ne président woo na ko it laata muy dem Mali mu ne ko ñibbisee bisee daañu daje waxtaan muy leeral nag moom sëñ Diop ne du ngir alliance ndax moom la ko ñoroon def na ko neb dogal leeral ci waxtaan wi ak yéenekaay bu groupe Futur Média moom président coalition bokk gis-gis liggéey mooy ne dara jotalewul dogalu politique am boobee ak ku tedd ki Serigne Mountakha Bassirou Mbacké daa fekk ne ak murit bi mu doon du woon teggin gi di déggee dogal bi feneen Pape Diop leeral it leneen diggam ak Ousmane Sonko ñiy laam-laamee ne ay jamono ko fay jàppale ki koppar moom Ousmane Sonko mu ne déedéet dara amu ca ca nag nit da ngay wax dëgg gouvernement bu bees bëgg taxawal géeg suñu leen woowoon ñoom coalition bokk gis-gis liggéey it ne daan ci dem ndax ñoom seen coalition am na ay ay membres yoo xamante ni ay cadres yu wér lañu yu mën a doxal gouvernement ci direct news Mamadou Lamine Massaly di ko jàppal tànk moom Pape Diop ca naan muy moom di jege ñaaleem amul benn leçon nag bu ñuy jotee ci ñeneen ñi ca liberté gu mat sëkk la defee dogal bi ca ñiy ŋàññ du nuy démocrate ndax nag xalaat ak dogal ku ne am na ca sañ-sañ ca nag mu ne moom Mamadou Lamine Massaly pareegul ci yooyu xeeti leader yi ŋàññ la tribune xëy ne président Abdoulaye Wade moom la mu a dégg wala gis yi ca nag ma ngay artoo taxawal groupe ne teg PDS ci toogu bu jekkul enquête xëy wax waxi primature ak assemblée nationale ak yeeroon tëgg ca Mimi Touré Amadou Ba yéene kaay bi ne du ñu nangoo féete ginnaaw Aly Ngouille Ndiaye it ak Mouhamadou Makhtar Cissé yéene bi ne faucon yi ñoom la ñuy diir le vrai journal gis ne président Macky Sall lu jëm ci tànnu premier ministre ak taxawalu gouvernement bu bees ma nga ci tànn gi waaye it ànd caakuk sa ngéem yéene bi dafa laaj ne mbaadu du Daouda Diallo mooy dànkab fanaanal bi Ibrahima Ndiaye spécialiste des médias ci source a gis ne diggante Mimi Touré ak Amadou Ba Amadou Ba lay tànn ndax dayoom ak i qualité mu ne dina doon chef de gouvernement bu baax Mimi Touré comme ko gis mooy ci assemblée nationale ba ci njiital penc moome wala it ministre affaires étrangères ndax bu baax lay doon ci fànn woowee Aly Ngouille Ndiaye it naka noonu mu ne mu am poste souveraineté di poste bu dëgër ci nguur gi leneen ci yéene kaay di kàdduy maître Amadou Diallo président Amnesty Sénégal mu ne 2007 ak léegi juróom fukk ak benn ci doomu aadama faat nañ leen ci manifestation fukk ak ñeenti dossier rek lanu ci àtte ak i daanu yemamaay yoon nag la gis ne la muy dëgëral mooy wàllu impunité dossier manifeste ak mars yëfi woon it mu ne ba tey avancé wul demul dikkul wàllu làmb Gris Bordeaux tey la gën a bokk fas ci sunu làmb moom Gris Bordeaux di ci dalal xelu ab Gueye ndax mu ne jóge Fass mooy trahir wor Mbaye Gueye moom produit Fass la dub traître ci observateur ñi koy ŋàññi nag moom Gris Bordeaux mu ne bu ñu yeboon noppalu ndax dara yëngalu ko ca moom mental d'acier la am maanaam der bu dëgër la yor dug nooy neex football gi observateur xëy xamali ñoo Pathé Ciss rakki Saliou Ciss bu équipe nationale ci liga bi ci Espagne ñu ne ma nga fay toj